برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الحمد لله القائل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الخير العزيز والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا لطيف صل وسلم على النبي اللطيف وعلى آله صلاة تلتف بنا صلاة تلتف بها لنا في سائر تقلباتنا ومسوانا ولتلتف في أجسامنا وقلوبنا وقواتلنا وحالنا ومآلنا وأهلينا وسرياتنا أو سريات الرسول ومهبيه أو مهبينا وأصحابنا وأنصارنا وتلامستنا ومريدنا صلاة شاملة عامة أبدا سرمدا إلى يوم الدين في أعلى العليين ومعوى المقربين آمين يا رب العالمين ñu ngi الله yàlla di صلى الله عليه وسلم di ñaanal Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ak képp koo xam ne kii yàlla joxoon na la maqaamam sëriñ salaatu boobu ngeen dégg man nuyoo léegi Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass moo ko def ci latif mu ne ko yaa latif salli wa sallim ala nabii latif turu garaaw ngo yàlla dafa taxaw fee taxaw fee mu ne ko yaa latifu salli wa sallim ala nabi latif salaatan taltufu lana biha fi saire taqalubatina wa mashwana mu ne ko yow nga nga xam ne yaay latif yow yàlla jullit ci bi nga xam ne moom it latif la muy muhammad ak ñooñam nag waala ali julli koo xam ne da nga ñëwenti suñuy mbir ci suñuy dem ak suñuy dikk suñuy dem ak suñuy toog suñuy yëngu ak julli goo xam ne danga ci ñi ci ñëweetal ñun ñi koy julli ci suñuy xol ak suñuy jëmm koor bi ak suñuy doom ak suñuy nit ña ne ca kër ga ak ñi ñelif ak suñuy sët ak ñi nga xam ne ñi dañoo sopp duñ taalibe waa sopp nañ ma bàyyaay wax ak ñi nga xam ne ñii samay taalibe lañ ak ñi nga xam ne samay xàndandoor lañ am ñi nga xam ne samay muril lañ ña nga xam ne nammuñ kenn lu yàlla lañ namm waaye ci buntu baay mu ne ko ñoo ñëpp yan na nga ñëwante seen mbir ñëwante goo xam ne dafay làmboo lépp te dafay sax te abadan lay de te sarmadan lay ne te illaa yoomi diin lay ne te illa yoomi diin gi ba mu ko waxee ba pare illaa mustaqari naa la ca teg ba ba ñuy demee ba toog ca kanam yàlla fi alal illiyiina maawal muqarrabiina ñu toog fa def daayira di sikar latif subhaanallah yan nañu yàlla fayal gi ko waaye yan na yàlla xaar njobootam yëpp xaar njobootu jullit yëpp xaar du nag àlaxira mu ne léegi nag latif boobu tey ci laa commencé latif yi ma doon firi ne bi wax na ci ñaar fukki pireeg ñaar amoon naa ci fukk waaye tey latif bi nga xam ne moom la bàyyi def ci daayiratul euh, euh, matlu wala daayiratul matalib euh, moom la ubbee di ci ñaan di ko fàttali mbokki taalibe yi ñu dellu foofa seetlu xaal latif bi bu ñu demee ca biir dañ fa pekk baatu latif juróom yoon ndax taltuf la bàyyaay wax foofu te taltuf gi boo ko compté ak latif yu njaa bi mu tuddee yàlla bi mu tuddee Muhammad dana nekk juróom juróomi latif ma ñëw nag tey ci xurt bi xemoon ci ne bokk na ci prime latif ba tey moom yàlla mooy nangul jaamam mooy nangul jaamam lum def ci àdduna di ko ko jox lu ëpp lam defoon mooy fukkeel ba fukkeel ba ak benn yàlla duñ xiyaa du xiyaasal ki nga xam ne day liggéey latif wala gëm baatu latif maa ngi fàttali mbokki julli yi na leen nag yàlla bi muy def 99 turu yàlla yi du jaageen daf ko def rek pour ñu naan boo liggéeyee nangam am nangam boo liggéeyee nangam am nangam gen naa kowee loolu yonent bi nee na yàlla am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent man ahsaha daxalal janna benn waay bu yàlla may mu ne mu firi baatu man ahsaha daxalal janna mu ne lu tax yonent mi ne man ahsaha daxalal janna mu ne ci asma alhusna yi yëpp tashtamilu jamiil maani mboolem loo xam ne am moral la wala maanaa la ci àdduna ak rek dugg na ci 99 yi ndax yàlla daf ko tudd daf ko daf ko daf ko tànn mu firi nag mu ne nag allati maanaa yi nga xam ne bako ko yàlla boolee mooy durujul janna aljana boo fa yéeg escalier juróom-ñeent fukki escalier ak juróom-ñeent ci konto nab yàlla ci benn escalier mu ndax yàlla moo xam diggante tur wu ak tur wa ñaata àll la ñaata million àll la waaye escalier yàlla nit ñee yéegee ci teral mu ngi nekk juróom-ñeent fukk juróom-ñeent hiya durujul janna kon man ahsaha daxalal janna ay man arsa saida fi tilka duruj kooku noonu la ko firee kon bon e, man ahsaha hagi molay firil ne mokal ko baxna diko sikar baxna ndax yalla neena de len ma tuddu lu bari kon tay ba tay lati bok na ci prime yi moy yalla Euh, duñ kal du kalkin ci moom mandum gi ndax boo seetee mandu yàlla ku ce yàlla àtte rek sa mbir du baax yonent bi dafa amoon benn mba yàlla am ñu doon ko wax mawaali mu toog ñaari fan gisu ko ñetteel ba mu gisu ko fekk mu jeex takk euh, suway bi lañ ko mu laaj ko ne ko lu la dal mu dama ñaan suma borom ne ko lima def aduna bala may ray ne ko na ko jël ne ko jël ci man yonent bi ne ko ñaari fan re nga rocce ko ba jeex ni xam nga ne loolu atanoko ko baye yalla ci yermandem kon nag bok na ci latif limuy firi moy ne waruñoo ragal ma lu dul màndum waaye waruñoo yaakaar lu ngeenelam koku moy mooy fukkee ñaar fukel baag ñatt mooy na dangay jaamu yàlla lu tuuti da ngay jaam bi daay jox yàlla yitte bu ndaw yàlla moom euh, jox ko fay ko fay ko mag te lim lay sant pour nga defa ko moo gën a néew la nga xam ne moom xam ne ne man nga ko ci misaal juróomi julli yi mu jox ni moom xam ne ne jaamam yi àttanañ lépp loolu kooku ci latif la boo tamee moo tax yàlla wax ci alquran ne wa asbaqa alaykum niamahu wa asbaqa alaykum niamahu zahiratan wa batinatan boo demee ci suratu luqman ci aaya 20 da nga ko fa fekk mu dellooti ne yuridullahu an yuxafifa ankumu dama bëgg mu gën a woyof ci yéen rek moo tax da lay sant lu tuuti fay la lu bëri sant la loo xam ne xam ne ne man nga fukkam mu jox la benn mu sant la benn ñaari aaya yooyu moo koy firi mu de ñeenteel ba te falaay taxaw incha allah mooy ne yàkkantiwut ki koy mooy ndax day bugg mu tuub yow mii mooy yàlla ismu latif mu ngi mbir ci biir ismu latif loo mooy mooy yàllaa ngi xaar bés boo jégguloo rek am na ñu naan vingt-quatre heures bu waa ji buggee bind rek malaaka mi mu ne ko xaaral laala jàmbi dana jéegulu ñu ne mu ne nag loolu yàlla da koo def pour buum rek bu rek mbugal mooy kat yàlla bi kii mooy li tax muy mooy jaam la te jaam dafa néew doole dafa néew kàttan dafa néew man-man dafa néew jisin te léeg-léeg la koy moyloo di xarisa ci moom xarisa mooy loo xam ne dañ ko mooñaaleeg moom nga xam ne mënu caa rëcc mu ne nag fukkeel baak ñeent bu bon yàlla ku koy mooy du yàkkanti pour mbugal la waaye du tas yaakaari jaam bi nga xam ne yaakaar na ko kon tey ñu taxaw foofu eh, ci fukk bi ak ñeenti ñeent incha allah buñ delsee eh, jublu ci tey nag ñu fas yéene jaamu xaat yàlla ci lii ñuy def euh, doom aadama man manam dafa néew bugg-buggam bari doom aadama xam-xamam dafa néew te li muy xoote xam bëri tey ci li ñuy jaami yàlla yi nga xam ne yàlla daf leen xiir ñu samp seen bopp ne dañu ñaanal ay jaam yàlla te xëñ na jékkuwuñ yoon wa ndax yoon wi jàng ba bugga a dee koy joxe judd ci màgg ci màggat yi ñooñu tey dama leen ay ndax yonent bi biñ ko laajee ki yàlla gën a bëgg daf ne ko ëpp njëriñ ci jaami yàlla kon nag maa ngi naan auzu billahi min ashaytaani rajim ne alif laam miim dalikal kitaab laa rayba fii delloo tina alif laam miim allahu laa ilaaha illaa huwal qayyuum delloo tina alif laam miim saat delloo tina ka haa yaa ayn saat delloo tina haa miim ayn sin qaaf delloo tina taasin miim delloo tina haa miim juróom ñaar ya hummal amru wa jaa an nasru delloo tina saat delloo tina qaaf yooyu boo ko calculé ci boppi saar yi yëpp xurufu nuuraaniya la xarafi leer la xarafi xarafi leer yooyu nag boo jëlee alif dootoo ko jëlaat boo jëlee laam dootoo ko jëlaat demet ba araf yi jeex bu jeexee rek nga am fukki araf ak ñeent soo ko seetee rek ci limba jumal du jumal rek da lay jox 903 903 boo ko séddalee juróom-ñaar rek mu jox la 129 ba muy juróom-ñaar yoon ñu ngi tey ñu ngi joxe loo xam ne képp ku dugg ci mbir moo xam ne yaakaar nga ne moom bu àdduna doon kii du sotti engaseel 903 di ko jaamoo sa borom subhanahu wa bu peree nag aaya boobu da teg xam naa ne tur woowu ma junj léegi ñu ko xam mana mën naa ñàkk a da ngay seet rek alif laam mim allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum wala alif laam mim zaalikal kitaab bi mu njëkkee wala saar wal quraan yaay seet neex walla nuun wal xalami xam naa bula la yàlla dimbalee nag ba nga demoon ci téere boo xam ne fek nga ñu génnee boppi comme mokkaloo ahamun saqakun alsu te moom romb na ahamun saqakun mu ngi ca tasun kañ na fofu lay dug tasun nasun siru ismulaay laa sam mu ngi non dafa am ben jaamam bi yalla bo xamne dama mom papa am kelifa lol lol ma sha allah di muqaddamu tijan buñ dajee bu may wax ak mom rek li xale yi wax day haju ba yow ya koy haji ben ben manako ko waaw bi yow nak li nak munema da nga xamul rek manaka mu ne ma man li ma li ma yore ku ko yor doo bëri wax ma ne ko waaw loo yore muy làqutu di xaaju rek ba benn benn nag mu bugg defar benn association arabe te xam naa déggul arabe lool xëy na mu may dégg léegi nag mu ne ma tànnal ma benn tur <laughs> ma tànnal ko turu arabe nag mu ne ma man 903 laa yore ma ne ko moom lañ yore <laughs> ndax man de wax dëgg yàlla 903 bi ma ko yor ma ma ne ah, ma ne ko demaguma réew ma waaye nag. Eh, loolu yëpp mu naa mën a ko nañ ci sant yàlla nga sant ci sa wayjur wi la ko jox may ma sant ci kilifa ga ma ko joxoon ñuy santante di dem rek ndax cant ga yëpp ci yàlla laay dellu kon nag mbokki jullit yi tey mbir maa ngoog man ak yéen ñëpp allah nañ yéene wante jàmm ndax xoolal tur wii ñuy wax latif rek àdduna yëpp kañ nañ ci li yàlla wasiya kursiyuhu samawati wal ardi dugg na ca latif danaa ci ñëw ci beneen bés incha allah waaye 903 da ngay jàng fatiha jàng salaatul astaghfirullah moo ciy tegu astaghfirullah nag yaa xam lim bi ca man salaatul ala nabi yaa xam lim ca man su ko defee nga jël trois bi yaa latif yaa latif ñetti yoon ñaan sa soxla defar yàlla tif yàlla tif ba muy juróom-ñeent yoon ci kurus gi nga ñaanal sa boppu jàmm ñaanal jullit yi yëpp jàmm buy man nga ñaanalal ma Cheikh Islam alaaji Ibrahima ak njabootam yëpp jàmm ñaanalal ma xalifa généraux yi ci Sénégal yi ak yu nekkul ci Sénégal yëpp jàmm ñaanal may yaay yi nga xam ne ñoo jur yar ba tey nin mën a jàkkaarleeg ñoom di leen wax ñuy dégg ñaanal ma yaay yooyu jàmm ñaanal ma bàyyi a jàmm ñaanal ma xale yi nga xam ne tey ñoo ànd ak man e, ci liggéey bi ñoom yàlla aar leen sàmm leen defal leen tawfiq mooy waa fayda tijaani point com ñu commencé woon ci allah ba am 99 turu yàlla temps yi ñun ñu ngi ci latif ndax latif du jeex e, loolu lañ doon maye tey di ci sant yàlla di sant yonent bi sallallahu alayhi wa di julli ci moom di ñaanal àddina bi yëpp yal na yàlla defal jàmm te lu ci waay ñaan yal na la ko yàlla nangul wa axiru daawaana an alhamdulillahi alamin seen soppe seen xarit al imam Mouhamed Jim Lo wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh